li ñu dajale fii kay lii kay tàmm nañu daje ci lii eh, néew doole rek eh, ñun li ñu amoon ci àll topp nañu ko benn par benn benn par benn bee ñu dese benn àll bi kot na nga xam ne nag dee benn yoon lay doon suñu dee tey dootuñu dee hatti ba ilaa yow mi diiri dégg nga te li ñu leen di wax ñun waxuñu fi waxi politique waxuñu fi waxi kubal dina leer ne jant bi gis nga fii duñu dem ci kenn di ñaan kayit wala di ñaan audience wala leneen ñun ñu ngi fii ci forêt bi dégg nga fii la ñu juddu ba ñu màgg fii suñu jékkee jékki nag ñu ne dañu koy ngar dajjo jox ko beneen tubaab ñu bahinu ñàkk fayda weesuwul foofu comme que nag comme que comme que nag nit yi kamatuñu kaw ma maire kaw ma maire de lañu man kamatuma nu ñu tudd dégg nga sonal nañu nu eh, mbéj nag borom moo koy fajal boppam mbejum kanam waaw waaw léegi nag ñun li ñu leen di mën a wax fii ci suñu àll bii bëgguñu fii kenn kenn ku ñu fekk fii ñaar kot mooy am jaarul yéreem ci wax bi amoon na bi may wax ñu ne xamal ni ngay waxee dégg nga man li may waxee amul politique amul dara leer leer bu leer nañ lay waxee ku ñu fekk fii nanga nga xam ne ñaar mooy nekk nga rëy nu nga béy wala ñu rëy la nga béy lii ñaar yi rek moo fay nekk benn maire bu ñu wax Serigne Gueye Diop ngar dajje na fii suuf yu bari man munu ma ko lim meeru sanjara la dégg nga nee nañu nag moom li mu matta day dagga waaye bii de barke Seydina Mohamed du dagga waaw waaw ndax xam naa ne tool bi su leen jaralee ñaari téeméeri nit yu dee fii nañu nañu nañu ko béy duñu ko béy tey duñu ko béy suba duñu ko béy ëllëg ñu ngi koy soo gisee ñu indi peres bi nag ñun am na fu ñu mën a dem am na fu ñu mënul a dem dégg nga fi mënul a dem autorité yooyu yëpp nañu dégg suñu wax bi suñu xaaree nag bee li nar a am am mbul kenn nit wak yëgu ñu ko woon wala tinu ñu ko woon junni hectare ak ñaari téeméer ak juróom benn ci ñaari ñetti commune ñoo ko bokk commune Nguéniène commune Sandiara commune Malicounda ñoom ñoo ko bokk waaye loolu sax man waxuma ko eh, balaa nit ñëw fii ba dem ay ceesak ay Dakar di bind foofu nanu woo ñu waxtaan ñun béykat yi ñun sàmm ñu waxtaan ak moom suñu muntu muntu ci biir fii ba ñu déggoo lu neex waaye na mu def waaye nag nga tëb rek nga ne man am naa doole doole kenn amu ko kudul yàlla dégg nga. meeru Malicounda bu Maguette Sène andu ci. ak meeru Ngéeñeen. kooku ne andu ci tey andu ci suba dégg nga loolu na leer eh, dégg naa nag am. ay population yi ñoo ko soxla ñoo ko nii suñu sox suñu ko nañu nu woo ñun kay suñu ko soxlee wax du am kene kana golo yi kam nekkuñu fii di di kaas droit ñun nit yi sàmm ak béykat rek ñooy kaas fii droit ñoo nekk ci àll bi bu ñu nekk bi bi mu nekk métti ñu dem ba mu neex nag léegi kon ne ku ne jaagar mu ne nañu ko jaay Tuuba burki dem rek ci màggal bi est que gis ngeen foofu benn kaal bi ñu dagg foofu hein ñun li leen di wax yéen waa borom rajo yi li ñuy wax fii bariwul yaatuwul forêt bi barke Seydina Muhammad suñu ko naree béy bakkan daanu billahi wallahi te loolu nag ku weddi essayé ko bés bu mu amee bu mu wax damay defoon ne dañuy faag dañuy caakaan ak lii ak lii gaña bugo mbuleem mburook eh, bala bugo weenu cooyal ñaling warang e sincu fi njeman croisement pôle croisement pôle waay yow ma ne sama yi yëpp béykat yi yëpp lii moo nekk seen xol e, burki démb rek bi muy laata taw fii taw bu jëkk bi dañu riiñoo ñun ak sous-préfet ak sunu maire yi mu ne partir di tey ba le 31 janvier bugguñu benn jur jóg ci biir tool yi waaw léegi nag jur yi fu ñu doon dem ci forêt bi léegi comme que forêt bi ngar dajjoo na ko tool yi mbul jur joggi léegi fu ñuy joggi loolu laaj naa leen ko dégg nga gis nga lii ñun sunu doole rek la ñu ci teg gannaaw yàlla ci dëgg la ñu nekk bu ñu ñu rey na ñun rey ci dëgg bu ñuy bay na ñu bay ci dëgg dégg nga Macky Sall su ko déggee na mu xam li may wax lu am la dégg nga amul neexal amul raay raay amul dara ku nar a béy fii moom mbul indi sandarmeri indil militaire yi soldaar yi ñu rey ba doyal nga béy dégg